internationale. Scénario international. su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak yi safoo seneinfo point net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal la xibaaru tey mardi di 20 avril 2021 ñu fas yéene ko tàmbalee ak xibaaru biir réew mi. production industrielle bu Sénégal nag dafa yokk euh, ci lu toll ci douze virgule cinq pour cent euh, buñ ko comparé ak li nga xam ne moom mooy production bi nga xam ne kon euh, moom lañ am at bi ñu génn loolu nag ñu ko xam ne ñooy waa agence nationale de la statistique et de la démographie di ANSD. am na lu bees ci mbirum capitaine Touré mi nga xam ne kon dañ ko teg sanction quarante cinq jours moom nga xam ne kon moom moo yoroon lii di dossier boobu di Sonko. ak Adji Sarr moom nag bu ñu sukkandikoo suñu naataangi seen news li nga xam ne moom mooy sanction bi ñu tegoon ci moom di 45 jours yi sax dañ koo yokk kon dañ koo yokk ba 60 jours te ki ko amal mooy kii di ministre des forces armées di maître Sidiki Kaba ba léegi ci mbirum capitaine Touré moomu sax ngir ñu amal décision finale bi war nañ déglu li nga xam ne moom mooy avis euh, bu gendarmerie kon gendarmerie war nañ ci joxe seen euh, avis wante sax suñu naataango yi nee nañ daal avis gendarme yooyu nga xam ne kon ñoom dañoo war a joxe seen avis soit ndax dañuy euh, avertir kii di capitaine Touré wala dañ koy radier wante bu ñu sukkandikoo nag suñu naataango yi nee nañ kon ñii di gendarme yi sax ñoom dañoo bëgg kon ñu radier euh, kooku lee di capitaine Touré. bu fekkee jàngoroy coronavirus nag tolluwaayam bésub tey euh, ministère santé joxe na nee na lu toll ci quinze nouveau cas moo am kon loolu day wane ne kon jàngoro jaa ngi wàcc wante nag terewul am na ñeenti nit yoo xam ne kon ñeenti nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan. Euh, si jàngoro ji démb bu fekkee nag euh, wàllum euh, vaccination bi fi mu nekk nii am na lu toll ci trois cent quatre mille six cent soixante yoo xam ne kon jot nañ leen ñàkk ngir musal leen si jàngoroy coronavirus. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek xibaar bu tiis bu xew fële ca Tchad tey daal ñii di l'armée ba dañoo xëy annoncé ci télévision ba ne daal kii fa ki nga xam ne mooy Idriss Déby nekk fa président ba te nga xam ne sax moom moo fa nekkoon président depuis 1990 kon euh, moom daal kon la ñu faat gannaaw nga xam ne kon ay jàmmaarloo amoon na ci diggante kon l'armée ba ak euh, rebelle euh, ci lañ ko faat Idriss Déby nag moom sax dañ ko fal bees foofule ca boppu Tchad lu yàggul dara kon lañ ko investir rek mu nekk président bu foofu la moo nekkoon foofule président ci Tchad comme ni ma la ko waxee rek gannaaw bi nga xam ne ab coup d'état militaire la jële woon loolu le di dëkk ba ex première dame bu Cameroun euh, di wuyoo turu Germaine Ahy Diop moom tam dafa génn àdduna guddik lundi jàpp mardi fii ci Dakar sax la génne àdduna moom nag moo nekk moom moo nekkoon soxnaay premier président bu Cameroun di Amadou Ahy Diop moom nag euh, mu ngi génn àdduna gannaaw bi nga xam ne amoon na quatre-vingt-neuf ans moom nag nekkoon na première dame bu Cameroun 1960 ba 1982 xibaaru bitim réew. wala xibaar àdduna kon dañ koy tam dañ koy tàmbaleeg xibaar bi nga xam ne moom mooy euh, tey jii di 20 avril euh, dafa yemook ci bu fekkee ci calendrier grégorien la kon tey bésub 20 avril bi dafa yemook euh, bés bi nga xam ne kii di suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa ci la gane woon àdduna kon ñu bëri di ko célébrer euh, bu ñu demee nag fële ca États-Unis euh, précisément New York euh, li ñuy wax fondation culturelle islamique d'Amérique di ICFA Institute ñoom nag ci njiitalul seen directeur di imam Mohamed Sakho ñoom kon bésub tey bi amal nañu ab journée kon boo xam ne dañuy célébrer kon loolu le di gane àdduna Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam ci lii di calendrier grégorien dañ koy jeexalee relation diplomatique entre États-Unis ak Russie nga xam ne fi mu nekk nii daal depuis bi Joe Biden nekk ñëwee daal ci pouvoir daa mel ni relation yi kon day gën a yàqu seen relation yi daal day am ay tension dañoo seetlu diggante États-Unis kon ak Russie seen relation yi day am tension. ci événement yu bëri wane na ko yu ñu weesu wante fi mu nekk nii sax ki nga xam ne moom mooy ambassadeur États-Unis fële ca Moscou di John Sullivan moom sax dafa xamle ne kon. Euh, ci semaine bi ci biir semaine bi kon dina dellu fële ca États-Unis kon dina bàyyeekoo foofu la ca Russie Moscou dem ca États-Unis ndax dañ ko foo soxla ngir ay consultation leen yoon see ci xibaar raf rafet seen teew lu ñu jox da ci jàng